salaamaaleykum. Sodoro salaamaaleykum. waaleykum salaam. bii day ci desoon yow xanaa multi xam nga multi service day am yow multi sport ngay dem. waaw ah, man man saa yu saa yu ma wàccee fii damay dem saa. Mm, da ngay entraîné kon yaa ngi ci karaté bi léegi. waaw. léegi yow comme yow boobu ba léegi musuma laa topp ci benn sport te da ngaa laal sama sport. kay yow karaté xam nga CNC bi ne 2S. waaw jàngal karaté ba mooy paa bu ñuul boobu. non non maa ko jàng karaté. non. nga jël. oui ay ree na. xam nga nit ku ne preuve am nga koy wan xam nga booy parfois mu gis mag mu toog du comprendre ñun jamono jii léegi na xew mais ñun suñu jamono bi ñuy karaté bu mu rek ngay jël takk. bii nag du sama mesure mais. ndax normalement daana naa nga tuuti waaye gannaaw léegi. naa xool ba xam ma dañuy xeex raag tuuti non sérieusement <laughs> <laughs> dañuy raag amiablement dañuy raag nii nice xam nga loo sa position mu jël sama position xam nga kenn ku nekk xam maa ñeme nit ki boo koy jàngal métier mu ba sa métier di def leneen ah. da nga koy fekk ci li mu ne wan ko li a ci wan su ko tey du ma kii yow damay raag ak yow am na li espoir may laaj def ak yow d'accord nga eh, d'accord ayca waaw ñu dem ah. non jaru kii yooyu jaru ko ba jaru ko jaru ko am waaw waaw nga bañ maa gaañ waaw. comprendre loo moo tax nga am nag may bañ a gaañ c'est bon. waaw c'est bon. pare nga defal yooyu ba pare yooyal. ba ànd si yooyu pare nga. waaw léegi pirip. kuy si maa war a si yaa mën na fenn. maa ngi seetlu dafa am a sifle. waaw pare nga. pare naa yooyu. yooyu. cëppi cëppil comme man <laughs> cëppi cëppi. eh booy loo def nii. eh eh. waaw dégg nga lu ma. waaw. eh déglu naa moo xam. <laughs> kan moo tooyal fii sànq ku def fi ndox. en fait noonu la yow da ngaa ñëw sa tànk fii laa dóor nga ko def fii ndox fii laa dóor. nga ko fii kaay kaay non def eh, quoi kenn dégg na dégg non sérieux man mën naa loo pare waaye la dégg nga. waaye boutique bee ba xam am na kere bu mel nii. ah xanaa li ma xamul simee ko. non demal nii baax na demal. non père ba ma lii non lii suñu métti moom nga ñu tere ñu koy génn si. waaw demal ko demal wuy ma. ah ma doon kaf ah, tax mag bu mu fokk fekk xale taxaw rek naaru mag yi dafa am nag de topp xale rek booy da ngaa réew nangam. dafa station de. animateur bu Sénégal li man li tax animateur bu Sénégal neex parce que booy animé da ngay bàyyi musique bi jàll. salaamaaleykum Mathiam. noo nekk. sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. xanaa da ngay dawali fas. dawali fas. waaw da ngay yëngu ci fas. <laughs> Ah. yaa ngi mel ni ñooñu ci dawal fas de. xamoo yow àdduna dara man damay tëral ñu ni damay dawi. mami. yow lu ci doole. tër ngay pour wàññeeku wala bëgg laa. waaw defar sama yaram. ah. sama style bi dama ko bëgg a gën a taayaat. loolu kay demal mami xam nga. eh yàgg nga nag de. waaw boy joom kañ dem. <laughs> déedéet kaay leen kaay leen kaay leen kaay leen kaay leen. lu muy ree. déedéet man da ngay exporté nii. waaw. <laughs> mami waa kaay kaay nii kaay. <laughs> wóor na yàlla bopp bi nga am ak loxo yi moo la may sax mais nii rek bu ko nit filmé woon nii ñay fini. waaye man di bàyyi wii ku la ko jaay marché jeudi day amul foofu moom waaw wax leen ginnaaw say dal kayam yaa yaay sol carax say dàll amul xeetu baaraam yi kenn mënu ko sol dàll ba xeetu baaraam yi ca wanga la wanga wëlbatikul ma xool wëlbatikul yittaat lu koy wàññi yittaat ban sportif ban fitness nga mën a dugg fan ba mu wàññi ko xool ko xool ko yi nga ah, damay wàññi sama kër de wala bàyyi wile bi. te ba ngay xasew yow eau bi képp foo dem di fay sport ñu tëj foofa <laughs> yow ban séjour yow ban fan nga mën a yow mami fooy ban vélo nga kan moo jël vélo di dérespecté si pétale kan moo jël yow dawoo dawlu waaye doo yow doo toog nga mel ko rekk riiba yow kii dinañ am ko toj yaramam waaye yow kenn du toj sa yaram yow kenn xamul looy nduróol yow mënoo régler. ca yàqu suppu ca yàqu suppu ba ca yàqu suppu nga may ma sama jàmm man bu ma ci bokkee léegi mu neex. man du ma ñu mel ni Tom et Jerry Tom yaa ngi ànd ak Jerry Tom et Jerry <laughs> yéen a ñàkk jom dëgg mami mi amul fit. waaw mais ban siis maanaam siisu pétale man saal la dem kooku jël risque jox ko mu toog yow da nga comprendre fii pata ñun dañoo rës pata amul cër Sénégal xamoo loolu ñun cëraluñ ñu foo dugg ñaari paas ngay fay foo euh, xew woo dem teg tegleel le siis loolu yëpp yaa ngi koy vécu waxatuma dara nga boole naan da export demal ba saal ba da nga xam ne pata bokkul Sénégal ñun suñ duñ dëgg Amérique la ñun boole boolewuñ ci campagne bi waaye <laughs> demal rek laay cër li ñuy jox as tuut sax dafa am lu ko waral dafa am luñ fu mu toll rek pata fu mu toll ci réew mi degré pata dafa am fum mu toll waaye bu woon loolu génn nañ ñu bu yàgg waaye dañoo xam bu ñu doon génne pata yi ni ñuy génnee bari maaleykum salaam. waaw père. kat kii. waaw dafa génn. waaw kaay baal ma baal ma baal ma soxla woon. man mi waaw <laughs> yow mi koy seet laa soxla. mu la fi seetlu ñaari yoon pour ñu waxtaan booy. maa jàmm rek. <laughs> jàmm salaam. ci diggante conseil rek. mag ak rakk du dëgg. mag ak rakk. non papa doom. <laughs> man bu mag de da ngay gis gi. Ah, ah, damaa teel a am bor kii rek ah, damaa teel a am jabar rek. loolu tax waaye du ma mag dégg léegi euh, dama bëggoon ñu waxtaan ndax euh, fi mu ne mhm. euh, gis naa la fi nag gisal la fi ma bëggoon a xam balaa may waxee dara ci looy yëngu. père man international la jour la damay football. fooy football ban club. man Lojan la signé. tout récemment rek yàggul waaw. Lojan bokk na ci monde bi Lojan. si mu ngi États-Unis du Nord la nekk. foofu de basket fa gën a doon yow li nga sol basket sax la gën a doon. non fii dafa tàng quoi xam nga rek ak été bi nii. <laughs> moo tax ma ñëw def sama débat. direction ah, bi sol yére joor booy joor da sol yére mais mënoo nekk joor pare sol yére basket. père da maa soxla da nga wax li may doyoo ma dem sama. waaw waaw waaw dañuy waxtaan. non sérieusement joor du mer mën nga football ba ci yàgg nii talo na nga mer yàq sa mat. si foofu laay waxee. jour dafa war a mel ni Sadio Mané. sa xol day rafet doo gaaw a mer dégg nga. ba pare jour du rassa parce que kii football ak yow. Mhm. mën na football ba mu neex nga wane ginnaaw mu jàpp sa rassa. si jour du rassa dégg nga. dëgg itam pour nga xool. Mhm. daal façon maa ngi jéggi léegi dama bëgg ñu wax yëpp sax ma fi. Mhm, waaw mais booy comme jour nga. Ah. te da am carrière. am ñu lay yaakaar. Euh, gis nga sobe su bari. day yàqal <laughs> waaw noonu jaa ngi tout à dëgg laay wax sérieusement day yàqal xale te da nga di xale. te kii ci folo dëkk. kii te yow comme ni ñu yaakaar ci yow. Mm-hmm. sa yaay ak sa baay yaakaar ci yow ngay xale bu ndaw moo sañoon nga regle tegu ci temps xam yow yaay kan bàyyi kii fexe góor góorgóorlu tekki ci bu takk sa jabar yor ko. Mm-hmm. man de loolu laa lay conseil sa jaabante bii nga arrêté ko sa vie ngay mel ni promotion di dem ak a dikk nga arrêté ko. loolu da laa doon ñaan man dinaa waxtaan diggante grand frère ak petit frère. loolu moo waraloon waxtaan bi quoi. waaw. père laaj ma la dégg